ñu ngi laaj post wul ci loo ci lu wér. non man yaakaar dina am remaniement xanaa ñemewuñu bàyyi ñeenti jigéen dans un gouvernement de de vingt cinq membres yi xobal nañu rek mais poste direction générale ah. il faut jox ci jigéen ñi nu mu gën a gaawee non dañoo war a corriger sax au niveau du gouvernement bon nag moom franchement dafa xaw a nekk lu leen xaw a topp ñoom pour problème rapport bi avec la gente féminine honnêtement lu leen topp oui non boo xoolee par exemple mais 2019 après élection 2019 is ont voulu supprimer le mouvement des femmes de PASTEF. ah may mën a jéy mii ak euh, Khadija Mahécor ñoom ñoo ko ñoo taxaw takk seen dëgg euh, seen dikk ne du fi amee. ah bon mais oui c'est des réalités de PASTEF que les gens ont vécu donc c'est vous dire simplement qu'il faut aussi que les gens aient une nouvelle perception des choses tey amul benn même les rapports avec les partenaires boo joxul jigéen ñi place duñ la. cëral nañ il y des critères yu ñuy jël en compte moi je l'ai écrit d'ailleurs quand on a nommé Yacine Fall par ministre des Affaires étrangères j'ai dit mais c'est une très bonne décision Excellent. parce que qu'elle incarne l'image d'un régime qu'on pourrait considérer comme un régime misogyne ñu def une femme à la diplomatie c'est une bonne chose moi je trouve que qu'il faut euh, comme ça qu'il faut faire mais il faut que les femmes jouent un rôle dans l'exécution des affaires de l'État. image du conseil des ministres boo ko gisee sax tu as froid dans le dos. c'est da ngay da ruus sax. no c'est que boo koy wax dañu naan que da ngay sànni xeer mais c'est pas acceptable on ne pas considérer que da ngay jël un gouvernement à l'heure actuelle de vingt cinq ministres titulaires ak cinq secrétaires d'État ah. ñeenti jigéen ñeenti jigéen amul sens loolu xel mënu ko nangu. franchement kooku c'est il faut il faut revoir ça bu ñu ko revoir sur un remaniement du gouvernement qu'on le revoie dans la distribution des postes de euh, direction les, nominations de la semaine y a eu deux hein y a eu deux femmes sur plus de 17 nominations deux femmes sur plus de 17 nominations la présidente de on est en de nommer les personnes de la présidence il n'y a aucune femme n'est nommée à la présidence aujourd'hui tous les décrets de euh, son chargé de communication bi ñu nommé tey ak son chef de cabinet c'est des hommes secrétaire général c'est un homme euh, euh, directeur de cabinet c'est un homme donc a aussi un problème de ce point de vue là peut-être que tey ñu ko wala defuñu ci attention mais dans le monde moderne c'est important des critère comme sax les critères de genre dañ koy jël en compte beaucoup deful doo dem boo ko deful doo dem parce que y a des partenaires y a des investisseurs c'est des critères sur lesquels ils jouent pour nangu yéewanal yenn yi donc munoo nekk ci àddina nag bëgg a ignorer liy xew feneen même réew yi nga xam ne dañu naan ay réew nit ñi dañuy muuru mais léegi la promotion des femmes ba ñu nekk ci seen parlement yi ay gouvernement yeneen dañ dem ba comprendre ko maintenant ils faut la promotion des femmes boo demee dans les pays arabes mais il y a une tendance à envoyer les femmes à l'école une tendance à envoyer les femmes dans les postes de décision dans les postes électifs kon c'est dans tous les pays kon aussi munoo en tout cas man du point de vue de des droits de la personne humaine des questions de justice des questions de droits des femmes et des minorités le gouvernement ne doit pas faire moins. moins que les autres que ñi ko